nuyu téléspectateur yi seetaan seen télévision Futur Média émission bi di jongante mbokk yi nuyu nañ leen ci ngun gi nuyoo muy asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakato am mbégte lool dellu si ak yéen comme ni ñu ko baaxoo def dimanche bu nekk ci émission bi nga xam ni yéen a ko taamul seen bopp bëggal ko seen bopp soppal ko seen bopp muy jongante euh, te di am ci télévision Futur Média mbokk ñu ngi nuyu bu baax baax ñi nga xam ni ñu ngi fii ci biir réew mi di fi daan seen doole lépp loo xam ne liggéey nañ ko yàlla na ko suñu borom tabaraka taala ful ba mu ay xéwal yoo xam ne ñëpp dinañ ci xaj ñu nekk ci réew mi mbokk yi fii amuñu liggéey nasaraan di ko wax chômeur ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla may liggéey boo xam ne nañ ci mën a tedd teral ci seen waajur teral ci képp koo xamante ne nii wërsëgam xaj na ci ñu gisul seen bopp fii ci biir réew mi màngaani dem ci bitim réew nasaraan di ko wax immigré moo xam fu waay mën a nekk ci àdduna wërngal képp yal na la yàlla may xéewal goo xam ne dinga nga ñëw investir ko fii ci biir réew mi Sénégal ndax jàmbaar dawul dafa wuti doole mbokk yi ñi seen doole néew ñu tëdd ci lal l'hôpital yi sax ak kër yi ñoom ñëpp yal na yàlla fëgg seen bopp ba ñu mën a dellu soit ci seen sago ñu fàtte ñi nga xam ne ñoo ñii la caabi ginnaaw ñoom ñëpp yal na leen yàlla may liberté ndax liberté dara dàqu ko mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu kon gis ngeen ni samdi ak dimanche groupe Futur Média rawatina TFM toj nañu dëkk bi ni ñu ko tojee mooy xam ngeen ni samedi dafa amoon làmb joo xam ni Gaston Mbengue moo doon ubbi saison am saison 2014 2015 ubbi ko ak làmb ju neex booy bawal moo ci doon jàkkaarloo ak ki nga xam ni moom mooy Mame la ngeen suivre ko en direct booy bawal daan Mame Balla jël boo xam ne amul benn werante booy bawal moomu mi ngi fii ci plateau bi mooy doon tey sama invité d'honneur incha allah rabbi dinaa ci waxtaan ak moom tey ci Serigne Modou Niang le promoteur des Nations Unies le ministre de l'emploi de la l'arène sénégalaise moo doon organisé euh, fi nga xam ni moo doon ca stadium Iba Mar Diop diggante Mansour Diop numéro 2 ak nga xamante ne ni moom mooy Ibu Senghor numéro 2 Ibu Senghor numéro 2 moo ko daan jël bu amul benn werante loolu lépp suivre ngeen ko en direct ci télévision Futur Média mu nekk ñaari direct yoo xamante ne nii lii teeñ bi rek yen bi dikkagul ajuma prince ak waa PABC Events ñoo doon tëgg euh, ci stade bu Ngor làmb yu neex te bar te gaaw te neex loolu dinaa leen ko wan waaye dinaa leen wan Pape Sow mi nga xamante ni nii moom ci jëmmi boppam ak Pape Production ñoom ñoo organiser seen signature contrat signature contrat boobu nag man sama yaram dafa daw ndax dañu dem ba ci pegg daara xale yi nga xamante ne nii dañuy jàng alxuraan mbaa arab Euh, néew doole ñii ñu ci bari sax seen waajur yi nekkuñu fi te daan dégg mbër yi rek te mosuñu gisanteeg ñoom Pape Sow dem ba foofu nga xam ne moom mooy ci géejuwaay euh, def fa signature contrat boo xam ni macha allah tubaar fa kallakaar euh, xale yëpp seen yaram dafa daw mag ñi sax seen yaram dafa daw parce que saafonte nañu ak mbër yi loolu dinaa leen ko wan incha allahu rabbi ak làmb ji amoon samedi ak dimanche ak yeneen surprise yoo xamante ne nii euh, am na ci biir émission bi xam ngeen ni groupe Futur Média rawatina télé bi mooy bari feem jongante mooy bari feem mbokk yi gis ngeen fi ma génn ti tey xam ngeen nii su ma koy wax rek naan sax dama mën a solu mooy rek géej am na ndox mbaa géej weex na xorom waaw ah, fii nag la sama tailleur bu jomma ñaaw bi génnati muy kati création corps habit génnati fii rek na ma Lamine nii ngay def la ma la jox stade ak la ma lay jox ci plateau jongante du doon benn xam ngeen numéro téléphone xam ngeen fi mu nekk mi ngi nekk en face Yoff jàmmalaay numéro téléphone am 77 631 52 52 631 52 52 mën a solo ngoog ndax kati création moo koy daggate mbokk yi li ñuy def mooy ñu dem seetaan signature contrat bi nga xam ni ah, Pape Sow Pape Production doon na ko amal ci géejawaay mu nekk signature boo xam ne yaramu ñu bari dañoo daw bu ko defee nag ma dalal sama ñaari jongoma yu ñaawul yi euh, di mami ak euh, naxalaati marietu ñoom waa Organo Gold ñëw indite leen seen produit yoo nga xam ni macha allah tubaar fa kàllakaar bu ko defee ma dalal Boy Bawal ak ñeneen ak ñeneen xëyum 404 bokkul ak ngontum avion te pom du moroomu new man mi maa ko wax mbokk yi ñu dem seetaan euh, euh, signature contrat Pape Sow bi soo ko dellu soit ci plateau bi tey ngeen gis lu ngeen mësta gis jongante ngoog mbokk yi ci télévision Futur Média fii la Pape juddoo fii la yaroo fii la màggee fii la fekk baax mu nar ñoo yóbbu nag incha allahu rabbi le 7 février fële sa stadium Iba Mar Diop nar fa tëgg gala boo xamante ni nii gala bi macha allah tubaar fa kàllakaar li ma ci gën a neex. mooy ñi am seen drapo di ko tuddee dañ koy tuddee ay borom barke di ko tuddee ay borom xaalis yoo xam ne dañu ci yaakaar dara waaye Pape dinañ leen wan léegi ki nga xamante ne moom la tuddee drapeau bi bu Pape deful ci moom moom du def ci Pape kon xeebuloo nit yal na la yàlla jàppale tàccu leen ko bu baax a baax tey nag mu ñëw ci peggu daara daara ji nga xamante ne nii fii la ñëw Pala jóob Pape yàgg na fee def teraanga yàgg na fee def xéewal ci ndimbal li nga xam ne moom lay jox xale yi moo tax mu ne man sama première sortie dama koy def ci ab daara indi sama ay mbër ñu saafoonte ak xale yi bégalante ak xale yi bu ko defee ñu xam ni man Pape Sow du def tuba yu paate képp ca boole maanaam làmb ñi nga xam ni ñoom ñoo koy seetaan te xamuñu mbër yi ñoo ëpp fuuf ñi koy seetaan te xam mbër yi am na ci ñoo xamante ne nii ñi ngi ñàkk seen bakkan te mbër ma tax ñu ñàkk seen bakkan xamuñu ko am na ñoo xamante ne ñu ngi xeex te mbër mi tax ñuy xeex xamuñu ko am na ñoo xam ne ñu ngi xuloo te mbër mi tax ñuy xuloo xamuñu ko lool nag Pape Sow ko fi génnee ndax mbër yaa ngi nii. mu jëm nag la set nar a tëgg diggante jaaji përëm astafurlah jaaji or la war a tëgg ak 12 ans mu war a nekk combat boo xam ni macha allah tubaar fakal la kaar nar a jër gaaru euh, naaru ghetto. boole ko ak góor fit nar a jël ki nga xam ni moom mooy lan naka la ndomboto motombo waaw xale bu mën a bëree macha allah motombo di ko boole ak ki nga xam ne moom mooy Boy jóob Boy jóob non du laal suuf xale bu mën a bëre la Boy Tukulóor di jàkkaarloo ak ki nga xam ne moom mooy Buur Géwél bàcc Seras numéro 2 di xale bi nga xam ne macha allah tubaar fakàlla kaar buy jóg ginnaaw raay ak Pikine ak li ko wër kenn du des te mën a bëre laal te bërki démb mu jóge ci victoire boo xam ne macha allah tubaar fa kaar moom la jël boole ko ak alu badu ndaw combat bu rëy. maalaw kayaar wala kayoor. maalaw kajoor moom la jël boole ko ak ki xam ni moom moy Albert Diop. yamu ca de jël na ki nga xamante ni nii moom moy Mathieu boole ko ak ki nga xam ne moom mooy Pape Moussa. no ah non combat bii Pape macha allah tubaab fa kàllakaar combat yëpp neex na waaye combat bii may waaj a wax ñëpp xam nañu neex na muy ci diggante rëg-rëg ak mbës. non combat bu rëy la waaw non combat bu rëy la xam naa ci dara waaw ñaari xale yoo xam ne la paala yoo xam nga ne duñu maye dara ci làmb ñu ne ko foofu lay yem mu jël ki nga xam ni moom mooy Lamine Mousse astafurlaa lamin Golo te te ma wax leen Pape Sow <laughs> li ma lay wax nii li ma lay wax nii dama bëgg ngeen dégg ko bu baax a baax xawma ci dara waxtaanuma ak moom fekkewuma fu muy waxtaan ak moom waaye lamun golo buy ñëw bala gay numéro 2 moo koy indi xam naa ci dara. xam nga lu tax ma ne la lamin Golo buy ñëw di daje ak ki nga xamante ni moom mooy ja naxa eh, Jamaal Jamaal Jamaal waa Jamaal bu bul faale mooy jàkkaarloo ak ki nga xamante moom mooy Lamine Golo Tyson wóoru ma ndax man du ma wax loo xam ne wóoru ma mais li ma leer ba leer mooy waxtaanu ma ceeg Balla gay waxtaanu ma ceeg Lamine Golo fekkeewu ma fu ñuy waxtaanee mais mën naa koo waat ni Lamine Golo le 7 février Balla gay numéro 2 moo koy indi ndax ku sës ci moom rëkk la tudd ko rëkk te nag bi mooy premier combat am kon Pape li nga def. macha allah tubaar fa kàllakaar bés la ma bëgg nga ñëw taxaw fii nag wax gaa ñi lan moo tax nga def initiative bii ci peggub daara bu ko defee ñu jox représentant imam bi bu ko defee mbër yi saafante ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy xale yi parce que lii rek déjà daw na yaram ñu tàggoon nag ba ca face à face bi nga xam ne ni ñu ko fas yéene def ci télévision Futur Média ñu fàttali ni Pape ci atum 2014 2015 télévision Futur Média la xaatimal contrat nara liggéey ak moom. yàlla li nga fiy wut yàlla defal la ko li nga séntu ci ñun ba ñëw ci ñun yàlla boo ko réccu Pape Sow. ah Lamine boo gisee jotaay bii euh, li ko waral mooy ñun dañu nekk ndongo daara comme li nga wax sànq rek ci commencement bi juddoo ci banlieue bi màggee ci banlieue bi ñun banlieue bi rek lañu am lu ñu am aussi fii lañ koy indi donc bu ñu yàlla dogalee ñu nekk ci làmb ji aussi di organiser ay combat am lu mel ni signature contrat yoon la ñu indi ko ci banlieue bi. mais signature contrat bi dafa bokkul ak signature contrat yi ñu daan def waaw parce que bii c'est un peu spécial comme ni nga ko annoncé parce que dañ ñëw ci daara saafonte ak xale yi indi mbër yi aussi mbër yi saafonte ak xale yi ñu bégal leen waxtaan ak ñoom soulager leen jël ci ñoom aussi xam-xam parce que mbër yi dañu war a di joxe chaque fois le bon exemple man boo gisee à chaque fois su may signature contrat su may combat wala su may événement ma ciy yoo xamante ay slogan la. li koy waral souvent mooy damay bëgg nit ñi di am ay jàngat yu ñu ciy def tey bu ñu demee ba indi euh, mbër yi ci daara ji c'est parce que dañu bëgg ñu xam ne làmb ji am na benn aspect positif bu ci nekk aspect positif bi nag ñun moom lañ bëgg a ñun MS production ci la ñuy dox depuis bu ñu duggee ci làmb ji ba léegi te yaakaar naa yàlla mi ngi ciy jàppale. comme li nga wax aussi ci problème drapeau yi yàlla def na ba ñu dalee tëgg ba léegi ñu ngi tëggal handicapé yi drapeau. ren defe naa moom moo nekk quatrième édition drapeau handicapé yi ki leen représenté fii di Alpha Sow. leen ko bu baax. moom mm-hmm. mm-hmm. bëgg rek nit ñi xam ne euh, ñun à chaque fois dañuy bëgg di wane benn facette boo xamante ne facette bu positive la ci làmb ji parce que lamb ji bëri na ay promoteur ku ci nekk yaa ngi am nooy demee mais MS production ni muy demee à chaque fois mooy le côté social. def nañ fi ay événement yoo xamante ne boo xoolee recettes yi ñu ci am yëpp dañ ko dugalaat ci banlieue bi def nañ fi événement daaw jeeg boo xamante ne recette bi comme li ma la ko waxee dañ ko def ci CDEPS bu Géejawaay def ci ay formation pour des jeunes yu dëkk ci banlieue bi ñu ci bëri am nañ ci ay diplôme loolu yëpp doolee sant yàlla la donc dañu bugg chaque fois rek di dundal làmb ji mais pas ñu koy dundee donc loolu moo waral tey ñu def rencontre bu spéciale bi di lancer un appel à tous les sponsors aussi ñu ñëw jàppale ñu parce que man je pense toujours que. je pense que lamb ji dañ naan am na violence certes mais il faut aussi nit ñi xam ne lamb ji ni mu amee violence noonu la amee un aspect positif parce que ñi koy seetaan bari nañ xale yi seetaan lamb ji bari nañ mag ñi koy seetaan bari nañ donc mu nit mën na ci bay waaram ba ñu am ci ay jàngat yu positive donc ñun ci loolu la ñuy doxee. boo xoolee suñuy événement amul benn événement bu ñu mës a organiser bu am violence loolu macha allah ñu ngi ciy sant yàlla di tàllal loxo sponsor yi comme d'habitude ñu jàppale ñu parce que ay ndaw lañ te aussi soxla nañ ku ñu jàppale donc on lance un appel à tous les sponsors yoo xamante ne ñu ngi seetaan ñu ñëw jàppale ñu si suñuy événement am na nag yeneen journée yoo xamante ne ñu ngi koy préparé euh, ñi ngi ñaan yàlla rek yàlla matal yëpp quoi waaw. jërëjëf Pape jërëjëf Pape. waaw may fàttali ni. manager yëpp teew nañu communicateur traditionnel yëpp teew nañu ñi nga xamante ne nii ñooy dundal banlieue bi yëpp teew nañu loolu c'est important waaye li ma ci gën a neex frappé ma ci te ñu bëri xam naa ni seetluwuñu ko mooy mbër yi nga gis nii ñëpp ñu taxaw seen ginnaaw ñëpp ay adversaire lañu kenn ku ci nekk yaa ngi lëng sa adversaire kenn ku ci nekk yaa ngi saafonte ak kenn ku ci nekk yaa ngi bégee ak sa adversaire ça il faut être Pape Sow pour le faire parce que kat paa la yaa ma gën a xam ni mbër bu xase jël avance su mbër def na ko noonu mbër bu xasee jël avance su mbër dootu ko gis fii ak ca lamb ja jotul te lii nga gis ni lii war nañ ko montrer ci annales yi war nañ ko montrer dugal ko ci archive u parce que lii li ñuy wax naan mooy dàq euh, sponsor lii dàqul sponsor. gis nañ fi ba tey mbër di dugg si ci signature contrat jaar gauche adversaire am jaar droite mm-hmm. ñu wis saal ba ba mu fees dal fii gisuma fi dara mm-hmm. loo xamante ne ni nuru naa violence kon Pape jaajëf jaaraama yow. léegi nag balaa ñuy jox représentant man nag am na benn information moo xam ni nangu woo ma joxe ko may man dinaa ko joxe ndax ñépp xam nañu ni. Gaston Mbengue dafa signe ak Papa Sow contrat jox ko avance sur cachet di ko wutal adversaire boobu ak léegi amu ko noonu ko Gaston Mbengue defee ak ki nga xamante ne moom mooy Papa Sow noonu la ko Pape Sow defee ak Elton mii Elton ñëwal Elton ma jox leen information signé na ak Papa Sow ci 2014 2015 Elton ci MS production lay bëreel loolu jar na tàcc bu baax a baax Elton ñëwal dama lay wane xam naa ni bëggu leen ñu kii ko. kon Elton la ngi Elton la ngi ñu ngi coow nag déglu leen ma bu baax ma ñu ngi coow Pape mi ngi ciy dox Pape sori na ci ndax man lu waay di nëbb na ma ko wax maa koy feeñal diggante mag Rocky Balboa ba ndax la Balboa Pape sori na ci lool ndax jokkoo na ak Rocky man mi jokkoo naa ak Rocky kon mun nañu njort nii ku bëgg ñan la gël ñand gëléem da ngay jot ca bakkan ba mën nañu njortu ni li Rocky bëggoon ci digganteem ak Balla Gaye ci Elton mii la koy amee parce que Pape mi koy dox te yaakaar naa ni jaar fii moo gën a yomb jaar ci Balla Gaye Elton kaddu gàngoog waaw bon asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñu teew fii ñëpp di nuyu suñu mbokk mbër yi nga xam ne ñoo daje fii muy fii di daara ñu amale fa manifestation bu mel nii li mooy war na ni làmb fu nekk mën nañ ko consommer kon tey ñu ngi nii si bunt daara lañ nekk di fi def si signature contrat mu nekk lu rëy c'est la première fois ñu def si daara xale yëpp teew nii parce que làmb moo dox Pape Sow nag man mii di wax ak yow ndongo daara laa ci lii la jaar Pape Sow nekk suma xarit euh, yaakaar naa mën naa ni ci ñi ko dugal ci làmb ci la bokk parce que man la doon supporter di def sama combat lu ne. tey bu ñëwee bëgg a ànd ak man ci saison bi 2014 bi dama koy ubbil bunt yëpp parce que moom moo ma ko ji muy Pape Sow muy waaju baax dañ koy ñaanal rek parce que ku nekk fi ngay tàmbalee yaakaar naa ne boo dem borom nu koy waxee rek borom bidugu mbagg boo gis boo ubbee magasin ba boo ubbee xol magasin ba mag fekk kon dañ koy ñaanal mu dem ba nekk promoteur du continent jef kon ji wax mbëri rek ñu góorgóorlu gën a jàppante te xam ne amuñu lu dul làmb hmm. di lancer tamit un appel comme ni ko ñëpp di lancer sponsor yi ñu ñëw jàppale làmb parce que làmb lañ am ñun Sénégal amuñu lu dul làmb. sa digganteeg Rocky loo ciy wax. sama diggante sama diggante ak Rocky kook amul sens kooku su ñëwee koy defaraat xam ne fii Sénégal la bi am fi amul fenn. dama koy ganal rek. dafa ko yaasa la VDN <laughs> mënul xam na lu may wax bu baax yaasa la VDN laa koy. moom eh, merci jaajëf. <laughs> jërëjëf léegi dañuy jël kàddu gi ndax Paala. Euh, gis nga bés bu jotee bu ñëpp ñooy mën a wax. ndax kenn ku jël parole rek yaakaar naa ni représenté na ñëpp. waaye xanaa xamoo ni woto lu mu xat-xat nuyul ma diw xaj na ci. dañuy jox conseiller am euh, di Alioune Seye mu sànni ci ay kàddu moom it ñu soog a jox représentant imam bi ak parrain bi ñu soog a tëj manifestation bi. salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di kenn kone sa tur ak sa sant di leen masawu coono te xam ne temps dafa sensible yow Lamine maa ngi koy commencé ci yow ak ñi nga àndal ñëpp sa disponibilité nga xam ne da ngaa tabe ci daraja loolu ñëpp xam nañ ko oyof nga ndaxte nañ lakk bu amee lu diis des fa looloo tax fu ñu la bàkkee nga ñëw yéen nag gone yi yéen laay waxal. gars yi déglu leen waay ak ndaxte génn góor gu am xam-xam ne na gone tuddul gone lu ne la tudd ndax mën naa doon ku ne ëllëg loo tax yéen mbër yi ñu indi ak jàngat ci bis bii ku nekk ñu ufal la gone ndaxte gone yi bëgg nañu làmb xam nañu làmb te ñu ca làmb ku ci ne war ngaa joxe le bon exemple da ngay gis koo xam ne kii da lay woo di la féliciter ndax lan la la doomam bëgg gis koo xam ne kii dalay ñaax ndax sa comportement ba nga am te doomam bëgg la kon nag le bon comportement c'est important ndaxte doomu aadama tam ma ñëw ci Pape Sow bari na ñoo xam ne ñi bu ñu amee changé seen carte d'identité ndaxte moom bu roon ca kaw ko ma ne fi mu doon yeew mbaama mi la gaare wataam bi taxul changé wut carte d'identité li mu indi li mu am ci quartier bi la koy indiwaat wér na ñëpp ndaxte fii la doon footballé fii la doon polarisé fii la signature contrat ci bunti jàkkaay Baye Dieng jii nga xam ne moom itam fii la màgg fii la defee lépp ñu defe ko ci jàkka ji kon nag wolof ne fukki lu ne bu la ko yàlla joxee da laa séddale loo ndax benn kon nag moom fukk yi mu am jox la juróom-ñeent yi nit ñi ni ñuy joxe asaka benn bi a téye fa mu bëgg a àgg na fa ko yàlla àggale bu fekkee nag tey aw tur lay wut wala daraja wala leen dina ko tuddee koo xam ne kii dina ko rapporté wala bu indil ko comme li Lamine waxan moom ci wàllu boppam li mu am da koo delloo ci banlieue bi jëlewut banlieue bi dara di ko yóbbu feneen yal nañ ci yàlla defal ba nu am ci ndam ba fa asalaamaaleykum wa rahmatullah ni moom mooy parrain bi ko bu baax parce que lii rek et c'est vrai ñu bari Médoune li ñuy def mooy tuddee drapeau koo xam ni dañu ci yaakaar ay millions mais bu jëlee handicapé yi tuddee leen drapeau te ñu bokk ci ñun Alpha représenté leen fi Alpha nu ngeen di waajee le set waaw ñu ngi sant Pape Sow parce que Pape Sow sunu waay la sunu xarit la nañu koy gërëm sunu doomu ndey la parce que tey jii day ñëw tuddee ñu làmb di tuddee ñu drapeau xam nga ñun tamit amuñu fayam xam sunu waay la sunu xarit la dina koy ñaanal yàlla ko yàlla fay ko xam nga sunu waay la sunu xarit la ñu koy ñaanal yàlla te ji lu. mais nu ngeen di waajee bés bi. lan ngeen di waajee bés bi. non bés bi dañ koy waajee bisimilah xam nga bisimilah xam nga làmb ji moom ni nga ko waajee ni nga ko war a waajee rek incha allah ñu koy sant xam nga dafa amoon benn abel ba nga xam ne ne moom laa bëggoon wax. lancé waaw si affaire Ndeye ko Ndeye Nicolas oh. gars yi dañ ko war a bàyyi parce que Sidi mu ngi nii. Sidi mu ngi nii bàyyi Sidi Lamine mu ngi parce que Sidi Lamine ñëpp ñëpp ñëpp dañ ko jàppoon gars yi bàyyi ko dañ ko war a bàyyi mu ñibbi këram loolu mooy joon xam nga loolu ko gars yi yëpp tàcc. xam nga Ndeye Nicolas laa ko mu ñibbi këram xam Pape Sow mii amul fayam parce que moom tamit sa damay tuddee làmb xam nga moom tamit sama doomu ma la ku ma bëgg la. ba Sidina Mohamed kii amul fayam billaay walaay. xoolal sa guddi loolu laa ma ma sama doomu ndey la. sa guddi loolu ma ne ma mu ne ma euh, mu ne ma yow handicapé xam na mënoo sa bopp dara xam nga nit nit moom mënul bopp dara àdduna àdduna nii rek la àdduna tax xam ne jàppale nañ ngir te yàlla nañu fonk de yi sunu mbokku handicapé yi nañu fonk de yi wàllu làmb ji parce que ñun tamit làmb tey jii waa 2STV tey jii ñoo ma may ba ñëpp xama si aduna bu nekkoon tey jii loolu tamit tey jii kenn ma xam. mooy Babacar 2STV maa ngi koy sant bu baax. di sant bu baax waa 2STV bi bu baax di leen gërëm waa TFM maa leen di sant bu baax. yàlla ngeen dem yàlla ngeen dem ba raw ñëpp si aduna bi. xam nga yàlla ngeen gudd fan yàlla may nag xew bu bëri maa ngi ñaanal Pape Sow yàlla fi yàgg te wér yàlla may ko lu mu bëgg si làmb ji yàlla may ko ko ba ñëpp xam ne ne Pape Sow mi sama waaye la ñëpp xamante ne sama diggante ma la mooy xam nga xool bàyyi na handicap yëpp bàyyi na handicap yëpp yi nekk Dakar yëpp mu ñëw tey bëgg ma ngir yàlla tax xam nga tey ji lu ma bëggee tey ji sama bopp ma na ñëpp xam na te ji du ma bëggoon tey ji sama bopp tey ji du ma xool wala tey ji du xool tey ji keneen tey ji du xool tey ji ñun ñu fi nekk yëpp parce que xoolu leen tey jii dafa dafa jox ma micro moo tax wax xam nga tey jii affaire bi ñëpp mi laa koy lancé maa ngi koy lancé handicapé yëpp maa ngi leen di ñëw le sept allah stade Iba Mar Diop ngi leen di ñëpp maa ngi gërëm sama doomu day may ab so yàlla fi yàgg tëwër xam di di ñaanal promoteur yëpp. ñu mm. leen gërëm bu baax. mag mën na ko for. wax dëgg yàlla pap euh, kàddu yi mu wax c'est touchant euh, may eh, may félicité bu baax a baax waa MS production ci initiative bi nga xam ne jël nañu ko ndax en général dañ daan gis euh, drapeau ñi ñu koy tuddee mooy ñi ñu yaakaaree dara mu jël ñoo xamante ne nii dañoo wàññeeku ci cër waaye seen xel wàññeekuñu mu tuddee leen ko mais boo xoolee xale bi ni nga xam ni cëram rek moo wàññeeku mais xel mi li mu fi wax yépp ay waxi nit la kon le 7 incha allah rabi février. tombek ajuma ci stadium Iba Mar bésu askan wi yëpp la waaye bésu handicapé yi la euh, Pape Sow jëf mbokk yi xam ngeen ni ku yokk cere di nga dolli ñeex ndax euh, peccum liir bu neexee wolof nee na ndey jaa téye ca mbagg ga te bu fekkee ni euh, dañuy def émission sponsor yi ñëw wuyu si du ñu def lu ne alhamdulilahi rabil alamin ndax xam ngeen ni sponsoru émission joŋante waa Organo Gold la bu groupe Siberu ñooy premier sponsor ñoom ñoo ñene tey ba ñu naan émission bi am na juróom-benn mbaa juróomi mbaa juróom-ñaari sax sponsor kon ñoom jigadiwuñ ñu euh, ñu ñëw nag tey euh, man mami ak mareetu ñëw indil leen nag ay produits yu doy waar yoo xam ni dafa baax lool ci seen wàllu wér-gu-yaram maanaam ay complément alimentaire la ñu ngeen déglu leen bu baax a baax ma tàmbalee ko ci mareetu mareetu maa ngi lay nuyu. Lamine maa sa micro bi da nga sax. ah organogold rek ganoderma rek. <laughs> macha allah ma bàyyi la nga nuyoo mbokk yi. auzu euh, billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim euh, di julli si sangu sang yi rek di ñaanal samay ñaari waajur. Uh-huh. Euh, di la jaajëfal yow Lamine Samba. jërëjëf. ndax comme da nga wax que ni. Uh-huh. diggante altine ak talaata bés xaju si. Uh-huh. yaakaar naa ne yow organo itam. seen ah non non benn lañu bés xaju ci moom dëgg dëgg la man li may wax mooy képp koo xamante ne nii wóolu la groupe Futurs liggéey ak moom dama koy gërëm ak émission bu mu ci mën a sponsorisé waaye nag euh, lu suñu suñu neex lu suñu neex neex samaa ko dàq moo tax ma ne ñu wóolu émission bi di liggéey moom kon alhamdulilahi rabil alamin euh, te yéen ñii yéen yéen a njëkk ñëw ñeme lool émission bi euh, ba gëm ko mani maa ngi lay nuyu bu baax a baax mani mii nag moom moo tax sax ma xamante ak groupe Sidéro ci turu sama mag El Hadj Samba ma koy gërëm di ko sant bu baax a baax mani maa ngi lay nuyu Lamine man lay fay. ma bàyyi la mu nuyoog mbokk yi. Euh, asalaamaaleykum waa Sénégal maa ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di leen sant. di nuyu suñu clients yi tamit Lamine. Uh-huh. ñi nekk bitim réew ak ñi nekk fii tamit. Uh-huh. ndax ñoom ñoo ñu dooleel jàppale ñu ba tey ñu egsi fii. dëgg la kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen remercier. jërëjëf Marietou tey loo indi gis naa nga teg fi ñeenti produit euh, ngëneel yi lama lan la. Ah, Lamine euh, ngëneel yi. Mm. dinaa ci wax tuuti. Mm. waaye dafa am ñoo xam ne itam il faut ma remercier leen. Mm. parce que dafa am suñu yenn clients yu nga xam ne wax dëgg yàlla bi ñu demee Touba. dalal nañu teeral nañu Faama ak euh, Nogay. Mhm. ñooñu maa ngi leen di wax ni sëñ Touba gis na lépp. Mhm. di souhaiter sama client yëpp tamit meilleur vœu. Mhm. temps yële passé jaaroon nañ fi ak yenn ci suñu ay produits. ba wax ci seen i njëriñ. Euh, micro bi jox ma boobu daan dama bëgg li ngay wax ñëpp dégg <laughs> leer nañ baraw mi ni bànjul ak sondel waaw tamit ñëpp déglu ci Gana Derma liñ ciy wax ñu wax njëriñam xam nga jaar nañ fi ak suñu ay produits temps yële passé euh, ba wax leen ak seen i njëriñ di leen fàttali rek ne ay complément alimentaire la yu bàyyeekoo ci ren bu ñuy wooyee ganoderma mhm. euh, ganoderma nag mhm. demal waa ñu ngi lay déglu bu baax yow askan yëpp ñoo ñëw lañ dem yow demal rek yow kay jëlee sa temps <laughs> ganoderma nag mhm. euh, moom la ñu wooyee buuru reen yi ndax lan déjà signification bi rek ganoderma dafay tekki pour vivre et maanaam mooy der bu sell te set tey indi naa fi lu mel nii Ganoderma ci boppam. indi fi lu mel ni mycélium. kinkofi. ak ay protéines. lépp ay compléments alimentaires la. bàyyi ko ci ren bu ñu naan toujours Ganoderma. am na kentaan yu muy def nag. ndax ñent yu mu àndal. Ganoderma bii. ku ci am zoomel leen ma ko ci bu baax mu xool waaw. bii dama bëgg ngeen zoomel ma ko bu baax. Hmm. ku ci bëgg a dellu ndaw. Hmm. ku am obésité. Mhm. ak bëgg a maigrir. Mhm. mën nga kaa jëfandikoo. Mhm. Ah, mën nga kaa jëfandikoo. mycélium nag moom. mu ciy naax. ak élève buy def examen te am trouble de concentration. ak directeur de société yi nga xam ni. dañuy liggéey ba sonn bay stressé. bii tamit mën nañ kaa jël. Ah. mooy ki ko fi. baax ci infection pulmonaire. ak angine de poitrine. bi nag moom. moom la gaa di wër. moom lay gaa yi di ñu. daal lañ kóor gaa ngoog. Ah. Mhm. kii mooy suñu protéine yi ñëw. Mhm. Euh, sama mbokku mbër yi. Mhm. maa ngi leen di woo ku ci bëgg euh, développement de muscle. wala ñi nga xam ne dañuy entraîner tamit te bëgg ay muscle yu. mën nga ko protéines yi am na nag plusieurs parfums. vanille chocolat loo xalaat rek am na. du la def dara nag. dafa baax ci yaram bii du la pataaloo. du la pataaloo du la jox yi ay lex. boo entraîné ba pare mu dëgëral say siddit voilà li ci daggoon mu defaraat ko. ba pare jox la doole yi biir ak doole yi li nga ñàkkoon ci gaata rek daf la koy delloo. Mhm. léegi xaaral ma bàyyi sama naataango bi mami. mu jox leen li baax ci taaru yaram biir ak biti ci Ganoderma. acca mami. Euh, Lamine. Mhm. tey li ma indi nii mooy dama indi savon. Mhm. indi diw muy velvet. indi eau de Jasmin muy pâte dentifrice. bi maa ngi ciy ñëw wax. bii mooy savon 3G. yëkkati ko ñu xool. bii mooy savon 3G mi ngi nii. Mhm. bii moom boo koy jëfandikoo. Mhm. daf lay gome ba nga set. Mhm. defar sa yaram ba mu leer. dindi salte yi nekkoon sa yaram yëpp daf koy dindi muy savon 3G bii. bii waaw bii savon bii. bii daal moom boo amee piccet. piccet tache noire yëpp bi moo ci gaaw ras sax der bi. ras bi ras bi. ok man mi commencé ras ak sooy bu jéem lii mooy diw bi. waaw te ku sangu ba pare ku sangu ba pare. di nga laaj di diw ku wan ko waa ji. voilà mi ngi nii ku sangu ba pare di nga diw. Mm-hmm. bii mooy velvet. Mm-hmm. bii moom dafa baax pour ñëpp. Mm-hmm. nag ndaw góor ñëpp ci yam surtout nag ñi nga xam ne. ñoom bu ñu koy jëfandikoo. ñoom seen der dina nes nes. xam nga nga gis ñoo xam ne dañuy bàyyi xeesal ñoo xam dafa mel dañ leen a diw. mooy ñi cere ñi cere ñi cere ah, ñi cere ñi cere nag bi ñi nga xam ne xeesaluñu sax ah. moom tamit mën nañ ko jël ndax bii dafa baax parce que gën a derma bi moo ci nekk ak si savon bi tamit ak ban bii di ogesmal mi pâte dentifrice ma bu ma reetaane waaw waaw gis nga man sax man sax dama comment waaw waaw <laughs> waaw bii waaw bii waaw waaw bii mooy ogesmal mhm. pâte dentifrice bi mhm. am seen ciini di nàcc. maanaam mbuuraan. voilà nàcc rek. voilà mi ngi noonu nag. Hmm. bi daf ci baax. Hmm. daf jàppale bu baax. Hmm. ba pare nag dafa sa bañ teg si. ba pare odooru gémmiñ doo ko am. maanaam xeetu gémmiñ xeetu gémmiñ. koo wax rek mu ne oh koo wax mu ne oh xoo daaw. mais bii <laughs> rapprochement na lay delloo moo tax a ñëpp si bokk. bii nag ma nga. mooy Dexfen. ak Jabi ñaari ñaari nekk ci biir. pour ñi nga xam ne. ñoom mën nañu jël bii. maanaam ñi nga xamante ni dañoo bëgg a. Euh, dañoo bëgg a. taay coca muy sama tante yi di sama bàjj. gis ci bind. bii mooy Dexfen bi ak ci baax te ba pare seddaay bi sedd na boo xam ne mm. te xam naa ne été bu ñëwee dina tàng trop mm. te da ngay bëgg soxla nag dem ci boobu géej mm. xam nga dem sol deux pièces kon nag ñi am ñi nañu ñëw jël Dexfen bi ak ji waa Sénégal foog ma delloo la ci été bi incha moo tax mu ñëw nekk pour ma indil leen savon indil leen diw. indil leen pâte dentifrice. indil leen Dexfen ak jet. Sénégalais yëpp yàkkamti na yoo xam. li ngi noonu fooy dem ak fooy woote rapidement. li yëkkatil sa micro. Euh, li ku ko bëgg. Hmm. da ngay ñëw ci euh, saveur d'Asie bi. Hmm. résidence Aïcha. Hmm. premier étage. ma ñëw seet si waa Organo Gold. ñi nekk ci Dakar. am nañ tamit ci Touba. boo buggee ci Touba da ngay dem ci sëñ Cheikh Mbacke loo nekk ci kër Cheikh Mbacke Medina. Mhm. te jàkkaarloo ak jumaa ji. Mhm. numéro téléphone am. dama xam ci micro numéro téléphone am di 76. 690 60 01. wala 78 104 35 11. fii ci Dakar nag ci groupe Sibéru mun nga jël numéro bi 77 066 79 69. waxaat ko 066.

waa ñoo koy daggate de instant yi. gërëm na waaw. comme li nga wax mburu bi. waaw dafa xoyom xoyomee. waaw organogold la xoyom xoyomee. kon organogold lay xoyom xoyomee. moom fa lay xoyom xoyomee mu am média bu xoyom noonu ñu waaw Lamine nga am nañ ci ndax tamit. Mm. ubbi nañ si ndax. ndax boo demee. waa sànq ba boo nee ndax di da ndar <laughs> ndar. waaw mm. si ba. Mm. nga seet si Adja Binta Diagne. Mm-hmm. ci ndax tuut. boo demee moom tamit numéro téléphone am. 77.

moom tamit di ko jaajëfal bu baax parce que am na Pastef lool ci liggéey. ma fàttali leen ne yenn ci produit organogold yi ñu ngi ci yenn ci pharmacie yi ah, boo fa demee di nga ko am ndax ay complement alimentaire la rapidement ñu tàggoo. waaw Lamine damay gërëm Sibérou Dieng. moom nga xam ne grand Sibérou mi ngi noonu dafa mmh, baax. te nga xam ne dafa dem ñafante ji reyante ji États-Unis pour rek indi fi produit organogold yi. nga xam ne fii rek la am. fii rek mu ngi gannaaw Europe fii la am ak yeneen dëkk yëpp tamit. Hmm. ñoom tamit ñu ngi leen di remercier ndax metti woon na torop waaye Sibiru dafa xeex ñafe indi organogold pour Sénégal mën si jëriñoo ndax bu mu ñëwee fii dafa fekk ay papam ay nijaayam ay magam mu ñëw taxawaayu taxawaayu rak bootu seen gannaaw pour rek mu nekk benn ñu jàppalante. est-ce que comprendre nga Lamine ñu jàppalante nekk benn pour Sénégal jëm kanam ndax Sénégal benn bopp la. kenn mënu ko xar ñaar mami jërëjëf Mareetu jërëjëf waa groupe Sibéru ma fàttali leen ni euh, seen émission jongante am na beneen sponsor bu bees boo xam ne incha allahu rabbi euh, ci fin du mois bi dina dugg muy Minti Makao xam ngeen ni ci biir émission bi la nekkoon ñu gërëm waa Tigo bu baax a baax euh, di wax ne képp koo xamante ni da nga bëgg réseau bu leer te gaaw te neex te bar. te doo woote muy kaleeg ñu naan la ki ngay woo mënoo koo jot ak yooyu loolu tigoo amu ci te seen crédit yi macha allah tubaar fa kàllakaar seen bonus yi beneen affaire la te boo jëndee benn sax euh, tigo da lay may juróom te macha allah mun nga ko jëfandikoo ba sa giiru dund waaye best Panthère Miso bu leen ko fàtte ñoo ñii ñooy gunge seen émission jongante ma leen di wax ni ngeen ñëw sponsor yi ñëw leen def leen ni waa Organa Gold Grip Sibeeru ak waa Tigo ak waa sax Minti Macao ak waa ah, Best ak Panthère ndax fii donc fii rek la parish bi tàngee fii rek lay xoyom xoyomee mani Marietou jërë ngeen jëf maa ngi kontaan ci yeen bu baax a baax. kontaan nañ ci yow tamit la maa ngi rabi ci beneen émission. merci ñu ngi toog gunge ma damaa bëgg dem stade euh, bu Ngor ndax foofu Prince. ak waa PABC Events ñoo fa doon tëgg gay naa ko moo fa doon bëre ay combat yu neex waaye li ma ci naqadi wax naa ko ndax booy wax li nekk feneen foo nga wax li nekk fii ci biir kër gi keroog ba may dem ab mbote caméra lañ ma jox mbote caméra bu toll nii mu mitti ma lool ba wax naa ko bu dee ci ñeneen danaa ko wax bu dee fii danaa ko wax xaw ma lu waral ñu jox ma caméra ba te dégg naa fi ay loo xamante ni macha allah xaaral ma noppi sax parce que dañ ma koy tere ñu dem stade municipal bu Ngor lamb ji soo dellu soit ci plateau bi. mbokk yi jërë ngeen jëf dañoo xaw a tardé nag Médoune Diouf li ko waral mooy caméra bu ndaw bi nga xam ni moom la MC jox stade bi yëpp ndeysaan du ñu reetaan ndeysaan naan waa TFM lan moo leen jot waa kër Youssou Ndour dañoo daanu wala dañoo amatul caméra wala lan moo xew wala Ndiaga mi ñu dénk directeur bi moo amul ay caméra waaye li leer ba leer daal mooy mbote caméra la ma MC jox tey MC man la yab ah, bilaay Neymar mooy jàkkaarloo ak ki nga xamante ne nii moom mooy laay kayaafi mbaxal la caméra TFM bi ñaari yambar yi ci bi di yappar yappari muy Neymar yambar ndeysaan ndeysaan ak laay mboot asafur laa laay laay kaña ñii ñaar man lay yab xaw ma presse ak as ñoo ma yab. bii de buñ ko attewul fajar la jëm waaw. combat bi jeex na match nul lu gëj am ci lambe ngoog ñaari yambar yi nen yambar ak laay mbóot cim xool leen match nul xoola xoola xoola ñàkk a jom ñaari mbóot yi cëpp yambar yi doon Atika ñoo nekk ci digg géew bi Demba Déranger moo féete seen ndeyjoor Atika moo féete seen càmmoñ Demba Déranger gëdd na na ko da koy daan Demba Déranger ak Atika Demba Déranger moo jël tànk ko Atika daan na ko Demba Déranger daan Atika du ko ëpp doole man lii xam ci lamb doole du dox jàmm lii xam ci bëre bo xoola nee na ngalañ Adica nee na ngalañ waaw waaw il est de déranger ci biir lamb ji dafa mu ngi déranger lamb ji ndeysaan daan na ba mu jaaxaan ne ngalañ xool ko waa xamee nga ko yor kurtu bi yor sarbet dimanche bu nekk mu lëng yóbbu xool ko ak jàllaabeem waaye daa bëri fukki combat Bour Sine toj na nen gëdd bu ndaw eh jël ko eh eh Bour Sine ak bu ndaw da koo gëdd ña ngay rokkas buur siin de ña ngay rokkas buur siin de ma jël tànk bi bañ na de bu ndaw mais mii du bu ma koy weyale bañ na laay laay la ma koy weyale bañ na da ka jargandal nga dëgg mi daa jargandal buur siin ak bu mooy rokkas noonu wan leen ginnaaw laay laay la laa mal éclairé le stade est Buur Sine bu ndaw laay laay la laa ña ngay xeex ña ngay xeex laay laay la laa xeexu mbedd laay a ngay rokkas xale bi nekk rek énergie ba ne ko mu daanu daanu na daanu na jël na ko la la xale bi kaawo na xale Rock Énergie bi kaawo te na <laughs> mais sa saale bi nga la il est dangereux Bour Sine ndeysaan ak bu ndaw jël nañ tànk bu ndaw daan na ko Bour Sine daan na bu ndaw billaay wallaay xale Rock Énergie bi daan xoola Pamba yàgg naa yàgg naa jëli am victoire de xool ko xoolal Pape Mbaye dafa yàgg a jël xale yu am victoire moom yàgg na leen a jëli Pape Mbaye Pape Mbaye nii wóor na yàlla yàgg xale bu am victoire moom day jàngal xale yi bëre xam-xam la Pape Mbaye am waay Lac Junior ak Déthié ndeysaan lak siñoor teg na nan ña ngay dem ca ga ñoom ñaar ña ngay lewaatoo laay laay la laa lak ak dëcc la Double Seck neexul ba neexul mais daa mën a way lak siñoor ak dëcc ñoom ñaar ña ngay Lac Junior moo nge mulu ñuul li moo moo mulu Déthié mi yambar la may ndurool de astafurla <laughs> Lac Junior ak Déthié songo nañu ñoom ñaar Lac Junior ak Déthié laay laay la laa daan Junior Déthié daan na ko ma ne ku mu daan war ngaa xaru ji Déthié mii fel Déthié fel na Lac Junior waaye arbitre amul concertation Déthié fel ko Déthié daan na Lat Junior xoolal waa ji. ndeysaan mbokk amateurs yi mbokk téléspectateurs yi ñu ngi fi nga xamante ne nii mooy stade municipal bu Ngor Events ak presse ak AS ñoo tëgg ndeysaan grand combat ba ngoog diggante Fandam moo wan kanam Gaynaa ko moo leen wan ginnaaw ndeysaan ñoom ñaar ñi nga lewaatoo waa ndeysaan MC li ma def tey ma la ko ba ay yomal caméra bu ndaw bii rek nga xëy jox ma ko eh da ngay xeex lu na gay naa ko bi ñu jël léegi baax na Vandam na gay jooy naa ko yaa yaa yeyu sow demal jooy sow laa ay romee ay romee man sow mbaa meew daan la bu yàgg moytu samay wax Vandam daan na kay naa ko. looy looy yëgul ni sax bi jeex waaw waaw joxu ko cër. wax naa la ko joxu ko cër. joxu ko cër Vandam daan na ko. Vandam daan na ko nañ dem. ci signature bi sax ñu bari dañu seetlu woon ni ko joxul woon cër ki nga xam ni moom mooy Vandam dafa yaakaar yaakaaroon dafay ñëw rek jaar ci kawam jàll benn mag bu yàgg ci làmb muy Pa Thier muy nuyu lool ki nga xam ni moom mooy Aziz mbay ak Modou mbay Garmi ak ki nga xamante ni moom mooy Ngañ Jaañ ndax ñooñu ñooy bibliothèque wu làmb rawatina Groupe Futurs Médias li Groupe Futurs Médias am kenn amu ko man maa ko wax du télé bu góor du tele bu jigéen du télé bu mag du télé bu ndaw télé am kenn amu ko maanaam ñi ngi denc ay bagage yoo xam ni macha allah tubaar fa kàllakaar ci kanam ngeen ciy xam dara mag mu baax ne ma Lamine ma ne ko naam mu ne ma même sa doom bu fekkee danga koy dóor boo ko toppee ba mu sës ci miir bi am na nu muy demee bu la mbasee sa loxo damm kon mbër da ngay jox cër moroom mu mbër ba mel ni booy bawal maanaam ni mu waxee sax keroog ak mam Balla ci signature contrat bi boola bi ma ko seetee bi mu ñëwee dafa jox cër Mame la ba daan ko jëli bu amul benn werante booy bawol yaay sama invité d'honneur tey nuyu naa la ma bàyyi la nga nuyu ak mbokk yi. waaw maa ngi lay fay bu baax. Lamine Samba. Uh-huh. maa ngi sant sama ñaari waajur. Uh-huh. xam nga uh-huh. di gërëm ñëpp di gërëm samay supporters yëpp. di gërëm waa Ngor. gërëm waa Bawol. ak kan Diallo Diallo ancien footballeur naka laati. consultant Mamadou Diallo. waaw waa consultant fii ci groupe Futur Media. ma koy nuyu bu baax a baax Mamadou Diallo. ak Lamine mi nga xam ne daf may jàppale bu baax. sëñ Abib Mbacke maa ngi koy sant bu baax. man maa ngi sant Dame Ndoye international sénégalais kuy bëggee émission bi la. fa mu nekk moom ak jabaram ak ay doomam. ak Cheikh Matar Camara ñoo ñëpp samay sëriñ. yaay sama invité d'honneur dinañ ci ñëw léegi. mais dafa am lu nar a xew. Hmm. li nar a xew mu nar a am le 25 janvier. ca stadium Iba Mar Diop ak top production di xale bi nga xam ni maa ko tuddee mbusum xale bu nu sol yàpp mag di son yi di le promoteur qui monte et avance li tax muy monter di avancer chaque ren bu ñëwee ca déwén ja macha allah dina teg ay jéego ren mu nar a tëggati drapeau mbay Dièye Faye ak Papa Gadiaga signature contrat bi fii la woon bërki démb ci groupe Futur Média 4 heures du matin la signature bi jeex waaye dama leen ciy compal aslëf tuuti wan leen ko laataa ñu leen koy wan intégralement ngeen xool li mbay Dièye Faye wax li Papa Gadiaga wax ak signature bu ni mu neexee woon laataa ñu leen koy dencal tuuti rek laa ciy comp laataa ma ciy waxtaan ak soñ bu jinne na leen dem. pom du morom bis ma koy yóbbul bis ma koy yóbbul yëf yi dama ne ko woon boo ko nanguwul rek ma ba làmb mm-hmm. te barki barki borom daam lu ne woon ci man la. dëgg la man du ma waxante du ma waxante du ma tricher te du ma wax lu ne ci man la. nii laa koy woon et toogoon naa ci plateau bi ma ne ko su ma rêve woon mooy dund ba lay tuddee drapeau. Mm. làmb boolewuma ak moom te moom xam na ko sax te xam na ne am na komba te incha allahu rabbi komba bii du def minute ma ak moom. du def du def minute maa moom lu leer naan ñi la wax. mu daal la ma daan ko nga naan man daan kii fan la kii bu ma taxawoon ñi yow sama loxo daf maa mën a yëngal moom xam na li ma koy wax bu baax yow yaa ngi ne xam nga ma man li ma xam si yow moo ëpp fuuf bu baax da dugg ba dugg samay mbokk waaw yow yow yow yow nga ñëw sama maam bi orange yi ma doon wax ma bay nag ci làmb laa ne nag man dama laa xam te xamoo ma dama laa xam ta xamoo ma yow da nga dem ba sama maam di ñaanlu. eh ala Pape Diop. mais bàyyi naa ah, ma ci làmb yow tamit may may. ko Pape Diop. Ah, ah, xam nga ko nga naan man nga naan man nga naan yëpp yooyu ay. Mbaye bàyyi ma ci làmb waay bàyyi ma ci làmb waay bilaay bàyyi yow. ana Pape Diop maamam. la lay laaj Pape Diop yëkkatil micro Pape Diop <laughs> mu ngi fa. waaw déglu ma wala. Papa Diop. waaw nga nuyul ko. ñu ne ñaari euh, adversaire yi moom li wax nañ lu bëri moom jeex na pare daanaka mm-hmm. li ñu sax li ñu ñaan mooy le vingt cinq rek ñu àndandoo en masse waa ñaar Grand Dakar ñëpp jàpp si bis bi rek ñëw stade Iba Mar bi yoon ñaata nag la non bi yoon dafa ma sax benn mois bu baax mooy bu ma bëgg suba si samedi bi na nga oto bu mag nga ñëw xombal ma jox la gileem nday ga la tudd <laughs> ah mais loolu nan la rëy kon gileem la bi yoon non bi gileem la ma jox te bi Lamine euh, première édition bi dama doon wax ne euh, publicité la woon quoi daj baa ngi nii nag. daj dëpp baa ngi moo nekk nii waa. mais di nga gis combat bu rëy ah. combat bu rëy dama lay wax nag ne la drapeau bi. Hmm. ca xamba ya lay fanaan. yow sa drapeau bi mais Mbaye Gueye loolu njëriñ la. waaw ca xamb ya xam nga euh, xamb yi buñ koy tëj. Hmm. ku ne da ñëw. Hmm. tibb. loo daj rek. yóbbu lool la. yàlla def nag man ba ma tibbee xamb yi jox ma galeñ. lu masul am. ci xambi seng-seng. waaw waaye ñoom ñaar seen combat. combat bu réy ngi lu leer laa lay wax nag. te sa drapeau ca xamb ya lay fanaan. fa lay fanaan. man la ma waxoon rek euh, je pense ci loolu lay delluwaat yow yaa ko wax léegi. da nga ne dañu nekk si combat boo xam ne combat bu ma fonk la c'est vrai dama ko fonk li tam ma fonk ko benn damay bëreek benn champion bu mag boo xam ne mu ngi nekk ci yoonam ma jël ko xam ne jël naa un adversaire très bi nga xam ne aussi preuve yi muy wane yu leer nañ la ku mën a bëre la ku am fit la ku am jom la kon bu ma jëlee ku mel noonu day jaadu pour ma respecter combat bi teg ko fu ma tegul woon benn combat. Mhm. beneen bi mooy nga ne maa ngi bëre foo xam ne du suma place. certes c'est vrai parce que waxoon naa ko un jour ñu daja Yoff ma ne ko j'étais pris mais tu es un adversaire par défaut il n'a pas compris li ma ko wax parce que lu tax mooy dama def ci suma yoon mais tollu moment boo xam ne je suis dans une mauvaise passe mais j'étais victime de certaines blessures yi nga xam ne empêché nañ ma peut-être ma doon def li ma war a def pour mën a ñëw jël suma combat liggéey si li ma war a liggéey alhamdulilah sant yàlla ci combat bi maa ngi sant wër naa bu baax a baax lépp lu ma daan def pour am ndam rek ci wàllu entraînement def naa ko te incha allah la ma waxoon rek bu arbitre bi soufflé door kurpañ fëq daan dem ñibbi leneen du ci am. est-ce ne xale bi du la xaar. du moom moo wàcce de moo. non dafa gestu. man loolu laay bañ. lu moom lu ko indi ci yow. gestu lu ko indi ci man maa daan fekk fekk fekk fu mu taxoon ma dab. Ah, nga raw ko quoi. au contraire man maa ko may sens su ma neexoon du ma bëre ak moom. ndax moom amoon na problème combat combat bi du woon man ak moom sooy wu xam na lu may wax bu dee sens man maa ko may sens ndax man la promoteur di wër mais pas laa indi jégg ko duma ko daan ko combat bi bu amee deux minutes man bëggatuma santa bàyyi naa lii man maa la ko wax. bu amee deux minutes man santa laa la lu ma uyu lu yoof ak mbuur raxasoo nañ ma ko jox ma naan. nga ne bu amee deux minutes. waaw dëggoo li ma la de. waaw li ma la wax nii dara du si dañ. nga bu amee deux minutes hmm. lu yoof ak mbuur raxasoon nañ ma ko jox ma naan. jongante laay teg lii. enregistré ma lii bu baax la ko wax te bu ñu par rek ma commencé chronomètre man. dama ne la dara du si dañ. <laughs> man xam naa ni combat bi du yàgg te dina neex le 25 la mais dafa am suma benn grand frère boo xam ni Ndike Samb lañ koy wax ñoo bokk ndey ak baay nee na ma euh, Grand Dakar gi mu dëkk yëpp ñëpp ngi jooy ndax. MS production euh, xale bi nga xam ne wax na ko ci euh, ak kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko waaye ñu ñëw ci la vingt cinq lii nag dinañ leen ko tegal intégralement signature contrat bi neexoon na lool dégg ngeen li Santa wax bu deux bu combat bi amee deux minutes lépp lu waa Mbuur ak waa Yoof raxasoo moom dina ko naan te bëggatu ko may ñaan waa Mbuur ñu raxasu waa Yoof raxasu jox ma ko ma denc non nañ ma jox man ma denc raxasu yi ngir bu boobaa bu daanoo ma jox ko ko mu naan ko bu daanee ma tuur ko mais na mu am raxasu ak waa yoof xaw ma ñaata million lañu sooy bu combat bi nar a metti de drapeau Mbaye Dieye Faye ak Papa Gadiaga waaw